ku bëgg Fatick lii la war ci waxtu wii nga xamante ne ku nekk yaa ngi nas say mbir di def ay coalition pour gagner ku bëgg Fatick bëgg président Macky Sall da def li parti benn Bokk Bokk Yaakaar yi wax mooy ñu ànd ak dal te déglu suñu njit kilifa gi lu mu wax noonu lañ koy doxale ma bi wax ne su doon yëkkati la ko ne candidat rek maa ko waroon def parce que yàlla dogal na nag chaise bi ñuy xëcco maa ci toog te nag wax ji laa dul def rek tawa caca tawa caca o fañin fañ fañ fañ tawa caca man mii toog di déglu président Macky Sall bañ a yëkkati sama loxo ne candidat la histoire politique u Sénégal man rek maa ci passé service avec un président en exercice et avec la manière parce que dew ma pale di signé président Macky Sall moo ñëw fekk si ci mairie bi avec son gouvernement waaw bu fekkee ne maa mën a ànd ak dal te toog ci chaise bi te waxuma mais ñëpp a war a ànd dal xam ngeen lu tax waxuma gor day am lu muy bañ gor bu la nit wóoloo da ngay xeex guddi gu ne pour kóolu tegi di gën a dëgër saasu ne man mii ngeen di gis en tant que de Fatick le mouvement nawetaan est là les professeurs d'université Birane Dieng dama ne man li may déglu militant discipliné yi di ko déglu magi Fatick yi di ko déglu jigéeni Fatick yi di ko déglu mooy président Macky Sall su ne woon tey Raymond bi su Macky Sall le président de la République président de notre coalition su ne woon Raymond la bëgg mu nekk maire Fatick man mii may doon directeur de campagne am Fatick su président nattee jàpp ne yow la war a jiital su may jaay sama kër dinaa ko jaay pour nga am ndam kon na nit ñi delloo si seen xel te xam ne yàlla mooy fal doomu aadama du fal boppam nañu xamit ne fii ku fi fëgg sa dënn ne yaa fi ne juum nga benn nit moo fi ne muy président Macky Sall yéen ñii yëpp toog fii tey su ma demoon ci beneen parti opposition dangeen di indi maslaak man waaye du ngeen ma topp kon nañu xam ne fii benn leader la am muy président Macky kon dañu war a jàpp basam bi ba ñi nga xamante ne dañu bugg a jël ci basam bi ay nit duñu ci mën a yéeg kon xeex bi du suñu biir xeex bi dañ ko war a yóbbu ci opposition bi moo tax yéen jeunes yi yéen a moom Fatick ak jigéen ñi takk leen seen ndigg expliquer leen yëf yi du ay Matar Ba baax na wala baaxul yëf yi mooy nan la ñuy def ba Fatick dox te Fatick bu naree dox duñ ko jox opposition Fatick buñ ko naree dox bu naree dox dañ koy takk def ko benn say jëbal ko président Macky Sall au 23 le 23 janvier mu gagné gagnaay bu am solo loolu laa bëgg a dégg parce que nag muy ñii fi ne yëpp ñoom président Macky Sall la ñaanal ñi bokk gis-gis bokk jëmuwaay dañuy am façon bu ñuy analyser une situation et cette situation bi ñu toll dafa doon situation boo xam ne dal la war a àndal la war àndal ñu fàtte suñu bopp jàppale ki nga xamante ne moom lañ yaakaar ci développement Fatick te muy njiiti réew mi moo tax jigéen ñi yéen ñëpp mënuma leen a fay su may dugg Fatick sama xol day fees dama koy sama xol day fees parce que nag ba président Macky Sall jógee nekk ci ay jafe-jafe jigéen ñi fi toog yëpp ñu ngi takk seen ndigg kenn mos sa bàyyi moo tax amul lu ñu mën a yëngal. dama leen di jégalu parce que ñu dalee sama kaw dafay am lu leen naqari waaye bu leen am lu leen naqari nee naa leen oto bi ci kanam la ñuy klaxonné bi ci gannaaw kenn du ko klaxonné nee naa leen nit ne am naa kàttan am naa maqaama bu tax waxu gone duma ko déglu am na loo xamante ne it wax ju jaaduwul duma ko déglu man li ma tax a jóg mooy le président Macky Sall képp ku ko bëgg maak yow ñoo ànd ku ko bëggul ma jëflante yow Fatick tàngoon na lool amoon na fi ñaari ma yoo xamante ne chaque jour ñu yenn ma ay doj yu méttee méttee muy taxawu Fatick di Fatick moo ñu ñor déglu bu baax li ma yor su ñu demee ba tey jii may dugg Fatick Fatick moo ñu ñor taxawu taxawu Fatick taxaw kon xam ngeen ne Fatick nekk na benn say pour benn intérêt mooy nan la ñuy def ba Fatick jëm kanam